nan ko xamee noonu rek sunu defaru ak sunu texe ak sunu lépp bàyyee sunu bopp sëriñ bi moo ci gën a gaaw ngërëmal sëriñ bi nag moom mais ne day wax nii ngërëm des ko ñaan des koy jëf rek kon nag ndokk ndokk bi nga xamee ni ngërëmal sëriñ bi rek lañ xemmem te muy luñ sañ luñ sañ ñaan te du loo xam ni sañ nañ koo ñaan dañ koy jëfal sëriñ bi rek doora mën a yaakaar ngërëm li jataay bii nag fi mu jóge muy def xaside yi ci xel def ko ci xol yi def ko ci yitte yi sax dàkk di ci yëngu sax dàkk di ci yëngu ku bëgg ngërëmal sëriñ bi ku bëgg ngërëmal sëriñ bi looloo ci gën a gaaw ñu góorgóorlu bu baax nekkal ko ci li ñuy may ngërëm ñu nekkal ko ci li ñuy may ngërëmam tawfiix ji tubaarikàlla baax na lool bari na lool rëy na lool yaatu na lool waaye nag ngërëm moo ne ci kanamam li taw fii ji rëy li muy baax baax am ngërëm nag moo gën moo gën a sotti ne nee na ngërëm nag moom des koy jëf nag ba ki ñuy jëfal gërëm la waaye doo ko ne may ma ngërëm rek nag déedéet da nga koy defal li mu bëgg yaakaar ni loolu xëy na mën na laa may ngërëmam ba moom mu seet ba xam ne yow mi yeeyoo nga ngërëm. mu seet ba xam ne yow mi yeeyoo nga ngërëm. mu laa mu laa gërëm. ngërëm mooy lépp. kon nag li ñuy may ngërëm. nañ ci góorgóorlu bu baax. nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax. sëriñ bi moom fi ko gisee ba fiñ ñu ko noppee gisee ci moom rekk la nekk. dafa mel ni sëriñ bi moom amul leneen boromam moom rek rek la bëgg. te loolu man nga koo xamee rek ci liggéeyam bu réy bii mu fi bàyyi jaxase day jiitu ci sëriñ bi genn jublu rek la am lenn ndigalit lay digle lenn moo xam moo xam ka àgg ci yàlla àgg ci yàlla ak kii door ñoo bokk lu mu leen di di digal nañ xool foofu sëriñ bi yàlla rek a yitteem ak yonent bi yàlla rek yitteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag nu góorgóorlu bu baax wute am ngërëmam rek lépp lu mën a doon ci lu baax lépp muy luy lu baax lu la ci mën lu la ci mën lu nu ci koy jéem di ko ko liggéeyale rawatina ci li ko gën a ñor muy wéy ci ndigal bàyyi tere def lu baax bàyyi lu bon sax ca dàkk loolu mooy jumtuwaay yi nga xam ni buñ ca awee daan mën a yaakaar ngërëmam daan mën yaakaar nag ni dinañ am ngërëmam loolu rek la sant nañ bu baax ci taxawaay bi ni mu ko waxee ci njëlbeen gi rek sëñ xam sa moom ba mu ko xamee la dalaloon xelam jàpp ni li sëriñ bi bëgg lépp mi ngi ci loolu nag ñun ñëpp la war nee na moo tax mu ne suñu tawfeex la joo xam ne mi ngi jóge ci sëriñ bi ndax ñun ñëpp lii mu def rek nii mu def rek la ñu war a def amul weneen yoon kon nag yal nañu suñu borom gën a gàttandoog tawfeexu sëriñ bi kon yal nu gàttandoo ngërëmam suñ boroom kàttanal nu bañ mën a sax ci li bi bëgg sax ci dàkk adduna moom amul benn maanaa amul benn maanaa alhamdulilah rabbil alamin ci yoon waaye alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi teg nañ ci yoon lii tax a mucc fii ci àddina mucc ci àddina mucc loolu mooy sëriñ bi maris na ko tudde ne waaye mënees na ko tudde siraatal mustaqim zaatiye du sëriñ bi ak sax siyam mooy siraatal mustaqim kon ñaan nañu suñu borom ci barkeem yàlla nañu suñu borom ci barkeem sëriñ bi diñ dolli suñu tawfi ji ñu am ci sëriñ bi yàlla nañu kàttanal itam bañ mën a nekk ci lu nuy may ngërëmam. bañ mën a nekk ci lu may ngërëmam. noo ngi koy ñaan ci barkeem. noo ngi koy ñaan ci barkeem. ci ngëneelam. ci ngëneelam. ci darajaam ci darajaam.